mbokk yeeg xarit yi teew teewlu solution TV solution info mbégte la ñuy am comme niñ ko baaxoo di def altine bu jot ci waxtu wile ñu fas yéene ànd ak yéen ci émission bi di émission des émissions ñu ci ànd ak nag ak Ndiogou Meng ñu fas yéene waxtaanee li nga xamante ne nii rek mooy xew-xew ak kàddu yi nga xamante ne nii. ñoom way autorité yi daañu koy faral di waxtaan waxtaane ci penc mi tey jii nag ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ñaanal leen jàmm ju sax dàkk noonu la ñuy ba diwaanu Thiès kaay benn rëkk ñaari gaar benn aéroport nuyu leen ziar leen ñaanal leen jàmm ñu ko ñaanal itam Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahat Mbacké yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd weer defal ko jàmm defal ko njaboot gi wasaare ko ci biir këram te koy ñaanal mboolem xalif yi ci biir réew mi yëpp ñu nuyu ko moom Ndiogou Mbengue ah, xanaa xamoon ne Assane sànq ba léegi mi may ma ne ko du ci man <laughs> voilà voilà ma jigéen ñi ngi lay fay ñi ngi lay nuyu di nuyu senegale yi nga xam ne ñi ngi ñuy teewlu nekk ci biir réew bitim réew fu waaye mën a nekk di am ci ñëpp mbégte ak kontaante euh, di nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ci technique bi waaw ah, Abdou Top Modou Diouf Abdoulaye Diallo Assane moom nga xam ne ŋàññam newu ci ci xoole rek la nekk na toog foofu di xoole waaw na toog di xoole rek day a ñëw di ruube tooñkat la mais ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu senegal yi nekk ci biir réew mi ak bitim réew waaye dem ba Touba nuyu xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaan mu yàgg fi tànd ak wér waaye di nuyu di sunu sëriñ sunu xarit sëriñ di mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér amiin yaa sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim wax laa nuyu ñëpp ñu ñuy teew teewlu. Mhm. macha allah mu ngi noonu jërëjëf euh, Ndiogu mais ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ayca Maodo wala Abdou topp ku fa ne rek tey jii fas yéene nañu waxtaanee euh, li nga xamante ne ni moom la président de la République du Sénégal euh, waxtaanee fële ca bitim réew. wax itam ci diggante mag kii di Ousmane Sonko mi nga xam ne moo jiite gouvernement bi jamono jile nee na nag dimension Ousmane Sonko romb na premier ministre nee na nag dafa war a occuper place boo xamante ne ni bu am importance de fii ci biir réew mi looloo waral tax ba mu doon wax mbirum post vice président boobu nga xam ne ni joxe na ci ay explication jëm ci ne élection yi di ñëw euh, ci 2029 daañu def euh, seen i pexe ba ñu mën ko ci boolewaale euh, mu nekk ay kàddu yoo xamante ne ni jot na ko fa yëkkati moom son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye Abdourahmane Diouf moom itam ñëw na ci élection yi nga xamante ne ni moom la ñu fas yéene dëgmal le 17 novembre bi ñu jëm euh, nekk nag ay élection anticipée moom nee na nag taxawaayam ak gis-gis bi nga xamante ne ni gars yi interprétation bi nga xamante ne ni ngi koy wax jëm ni nag euh, ne Pastef dafa war a euh, demal boppam ci élection yooyu la nee na regard bi mu ci am bokkul ak ñenn ñi niñ koy xalaatee daañu leen ko diktal léegi léegi su ko defee alaaji daal di ci indi xalaatam tey ji ci suba daaw demin ñëwaat na ba tey euh, jëm rek ci élection yooyu nga xam ne ne ñaari euh, leader yi di Ousmane euh, Sonko ak Barthélémy Diaz jëm nag ndax daañu bokk ci l'élection wala déet nee na nag Ousmane Sonko moom daanaka li mbiram lijjanti nañ ko ci euh, amnistie bi nga xamante ne ni euh, Macky defoon na ko fi nee na nag bu ñu sukkandikoo ci mbirum Barthélemy Diaz mi nga xamante ne ni Cour suprême bu Dakar le 22 décembre ci euh, confirmé bi ñu confirmé woon ne dañuy daal di koy. daan ci mbirum Ndiaga Diouf nee na nag looloo waral bu ñu sukkandikoo ci article L29 bu code électoral bi bu fekkee ne euh, rajee nañ ko te ñu appliqué woon yooyu la mbir du mën a bokk ci yile élection nee na nag euh, lay confirmer loolu Cour suprême rek moom moo ko mën a décider léegi léegi ñu ànd ak yéen nag ak kàddu yi nga xamante ne ni euh, moom Diomaye le président yëkkati woon na ko ci ab entretien bu mu doon amal fële ci bi teew jëm ci Ousmane Sonko du ñu def rek lu dul dem teewlu ko te dellusi Je pense qu'il n'est pas utile de rappeler que Ousmane Sonko, le Premier ministre, n'a pas été dimensionné pour un poste de Premier ministre. il est tout à fait normal qu'il occupe une place importante dans l'architecture gouvernementale en en étant le chef, donc en déroulant qu'il prenne toute la place qui est la sienne dans le cadre de l'exécution de ses missions. Il ne va pas au-delà. La loi et la Constitution ne lui permettent pas d'usurper mes prérogatives et il ne le fait pas. Sous ce rapport, tant qu'il se déploie de façon efficace dans le cadre de la mise en œuvre du pro projet, il aura mon satisfecit et il est en train de le faire et de le dérouler en toute loyauté, avec toute l'abnégation qu'il faut et tout l'engagement qu'il faut. You've talked about the creation of a vice presidency and also reducing the powers of the Republic. Why do you think these reforms are necessary? And when do you think they will be introduced? D'abord, quand j'évoquais le poste de vice-président, il était question qu'il soit élu à l'occasion d'une élection présidentielle dans le cadre d'un ticket entre le président et le vice-président. La prochaine élection, avec cette hypothèse de réforme, se déroulera en 2029. Pourquoi nous avons proposé une telle réforme Pour la simple raison que les pouvoirs du président de la République au Sénégal, tels que la Constitution les répartit entre lui et les autres institutions et même au sein de l'exécutif, sont exorbitants. Aïcha mi ngi noonu jërëjëf Alaaji dégg nga kàddu yi nga xam ne moom euh, président bi yëkkati na ko non seulement yemul sax ci expliquer parce que da nga doon dégg am ñu doon faral di wax ne ñoom ñoo ñu diggoon post vice président mais tey xamal nañu ne procédure bi ak réforme yooyu noonu euh, kañ lañ ko fas yéene taxawal jëmmal ko ba Sénégalais yëpp gis ko euh, wax itam ci dimension yi nga xamante ne Ousmane Sonko war na ko am poste boo xam ne ni bu. am solo la ci gouvernement bi su ko defee seen liggéey ñu mën ko gën a taxawal bu mu dëgër. waaw euh, kàddu yu am solo la jóge ci président de la république jëm ci premier ministre am muy premier ministre réew mi di premier ministre Ousmane ci taxawaay bi nga xamante ni euh, moom la amee euh, xam nga lii jàpp naa ni lii mu tontu nii. lu mel nii rek la waxoon ci biir réew mi parce que xam na moom ki nga xamante ni mooy premier ministre xam na ni palaasam romb na sax doon premier ministre du dëkk te yéene na ko fi mu toog tey premier ministre toog fa donc dafa feddliwaat yëf yooyu xam nga ñi am problème euh, mooy ñi nga xamante ni bi yéenewuñ ko ko Ousmane ko fi mu nekk ñoo ñoo am jafe-jafe waaye du kenn koo xamante ni kii jógoon nga dem voté li président Diomaye parce que président Diomaye waxoon na ko fi wax ni koo xam ni 12 ans lu ëpp 10 ans maa ngi liggéey ngir mu toog ci post bi euh, mastamaak mag tey tey yi laa ko ko gën a yéene moom mu daal di may fal ci post bi ci lu matut fukki fan mm. mu daal di ma fiy teg loolu di wane dimension nit ki parce que loolu c'est très important donc jàpp naa ni wax ji fi mu ko waxaatee parce que di faral di baamtu kàddu yi dafa am solo pour ñenn ñi nga xam ne ñu ngi autour jéem a fexe ni li ñuy def mi ngi def effet ñu yëg ni fa ñu tolloon démb fa lañ toll ba tey que ni diggante bi bés bu ñu jéemee pour yàq ko ñoom ci seen jëmmi bopp ñoo yàqu waaye diggante la boo xamante ni bi sunu borom moo ñu ko defal ñun réew bi ñu war a sant nag bu baax a baax. parce que diggante la boo xamante ni bii tey euh, diggante bu am solo la waaw parce que vraiment euh, yàgg nañoo sonn yàgg nañoo sonn ci réew mi ñi nga xamante ni bi ñooñu jiite di ñu fawee di ñu caaxaane ba sunu borom dogal lu mel nii mën a ne donc ñoom dañu doon yàqal far defaral ñu léegi nag li nga xamante ni bii tey mooy Euh, dogal bi nga xamante maanaam boo gisee àddina yu gars yi dañuy wax ne doole ji Ousmane Sonko yor xam nga bu fekkee ni lu jëm ci wàllu luwaak ak yooyu loi bi doolee lut ki nga xamante ni moom la ñuy wax premier ministre boo seetee président la dooleel loolu moo tax mu yëkkati ay kàddu looloo taxoon ñu waxoon ne dañuy amal li nga xamante ni moom la ñuy wax vice président fexe de telle sorte que yenn yi féete sax ci moom wàññi ñu wàññi waale doole président loolu projet la boo xalaat la yoon yoo xamante ni bi mm-hmm. Pastef yàgg nañ ko am te loolu ñoom ñi ngi ci te loolu tamit wax dëgg fa yàlla du doon rek lu dul njariñu réew mi parce que li ñuy def nit ñi waruñu ci gis nit ki parce que ñu bari mën nañoo yàqule mën nañoo yàq loo xamante bëgg a yàq loo xamante ni bi ëllëg mën na doon sax ñoom ñoo koy doon comprendre nga parce que bu nit di def lu baax bàyyil ñu def lu baax parce que loolu lu baax la pour ci réew mi parce que ñun dund nañ at yi ñu génn ay jafeñ-jafeñ yoo xam ni ki ñu ko teg wax dëgg fa yàlla yëgoon ni mooy buur di buum mi moo tax mu teg ñu jafe-jafe yoo xam ni kenn munu laa wax nu mu toll donc ñuy delluwaat encore une fois di ñaan ngir suñu borom mottali yëpp gën a dëgër seen diggante mhm. di wax ni ala kulli haalin que ni mu neex leen ñoom ak mu met naqari leen farfos dañuy doon benn mhm. parce que loolu mooy li nga xam ne moom lañ ñu jaay mhm. Sonko jomaay jomaayee Sonko loolu mooy li nga xamante ne bi moom mooy li réew mi di dund moom la réew mi gëm tëdd penaan yi ci loolu mooy li nga xam ne ci lañ nekk. mu nekk njëriñu Sénégal. waaw mais alaaji kàddu yi nii euh, comme ni nga ko waxee rek euh, njëkkoon na ko fi yëkkatee fii ci Sénégal ci beneen anam gaay yi génn di wax ne Sonko moom moo yilif Jomaay mooy jiite Jomaay dafa nekk ombre bi rek di kii ak yooyu noonu est-ce que gars yi tamit du ñu amaat mën a dóoraat ci kaw li ñu doon wax. waaw buñ nañ génnaat parce que loolu sax euh, ñoom comme que comme d'habitude nañ génnaat wax waaye du tere moom wax ji moom euh, lu koy dëggal rek lay am ñoom xamuñ ni seen génn googu mooy suuxat diggante bi sax moom paren saa yi nga jéem a def yenn fekk yaa ngi suuxat diggante bi seen génn googu ñuy génn di wax jomaay faaliwut loolu waaw koo xamante ni kii dafa yéene woon kii nekk kilifaam ci politique moo nekkoon yéeneem mu jaraloon ko lu nekk ñëpp gis nañ ko ci Kër Massar mu yëkkati kàddu nga gis ni mu déterminé ni mu àndee ci yëf yi comprendre nga fas yéene kii doon kilifaam sunu borom dogalee nii moom mu doon kilifa ki nga xamante ni ki moo te kooku nangu ko ay non <laughs> àddina yombul de am na ban politicien moo fi mën lii li Ousmane ko def ça n'existe pas amul politicien yii yëpp kenn melu nii parce que la preuve ñoom ñëpp jaar nañ ci épreuve yu mel ni ñu ci bari jaar nañ ci épreuve yi gis nga nañ doxalee ñoom dañoo jàpp ni ñoo ñi leen jiital Sonko rek moo fi wane ni man ak ñi nga xam ne ñoo ma jiital ñoo yam ay gor lañ ñu àndandoo doon benn bopp wara liggéey ngir sunu réew comprendre nga kon du man jomaay bu ñëwoon du jomaay it ñu ne Biram Souleye wala El Malick wala Abbas ak keneen ak keneen ñëwal comprendre nga mm-hmm. donc bu fekkente ni bi boo seetee ni mu tëralee stratégie dem na ba ci ki nga xam ni moom lañuy wax Euh, Cheikh Tidiane Dieye que bu ñu bañee sax lii ñu indi Cheikh Tidiane bu ñu bañee sax loolu ñu indi Habib Sy mbokk yi wax dëgg fa yàlla tànn naa ci sama ñooñ mais même sama ñooñ bu ñu ko bañee c'est extraordinaire même sama ñooñ sax bu ñu lànkee ma jël ñu ku bokkut ci man mais nag koo xam ne dama koy tànn ci jikko hmm. comprendre ko. macha allah donc loolu. gisaguñu benn politicien boo xamante ne bii taxaw na fi noonu. te yàgg nañ ko wax sax nag nee nañ euh, Pastef projet bi du kenn nit ñëpp la c'est tout une génération euh, yàlla na yàlla dolli sutura. defal ñëpp jàmm. Euh, ñu ànd ak nag euh, kii di euh, Abdourahmane Diouf moom itam nee na daal gis-gis bi mu am ci élection yi Pastef na muy doxalee nekkul loo xamante ne ni moom bokk na ak gars yi ni ñuy gisee ñu dem teewlu ko te dellu si. Pastef. Mhm. atay ah, aliem war a dem ci bannière Pastef loolu tamit est-ce que nekkul un pari risqué surtout booy xool aussi en face bloc yi nga xam te nii. mi ngi taxaw si opposition bi. Euh, d' abord euh, ni ma ko comprendre. Mhm. moi dégguma waa PASTEF na ñoom dañuy dem seul aux élections mhm. comme yenn ñi niñ ko bëgg faire comprendre mhm. parce que tam am na noo xam ne boo ko présenté noonu yeneen alliés yi dañuy gis seen bopp. ay mhm. question déggoo la dafay mel ni dañu leen wegul. Mhm. c'est pas ce que j'ai compris le mot bi nga utilisé bannière dem bannièreu Pastef. Mhm. xam nga bu dee xam nga un peu géej gi nu muy doxee xam naa Siré moom xam na yooyu marine marchande. des ñu ne la tel navire. ba pavillon et cetera foofu muy battre pavillon tel navire bat pavillon sénégalais tekkiwul ne navire bi Sénégal moo ko moom mais il bat pavillon tey boo ko bëggoon appliquer ci contexte bi da nga naan ñun dañu nar a am coalition boo xam ne c'est un navire politique qui bat pavillon Pastef Pastef dafay nekk label boo xam ne mooy rassembler autour de de de notre liste pour jox ñu majorité boobu. nga xam ne moom lañ bëgg. label boobu mënoon na tudd Sonko. mënoon na tudd Diomaye mënoon na tudd Abdourahmane mënoon na tudd Awale. mais c'est un label boo xam ni nekk na un produit marketing qui a déjà fait ses preuves. jërëjëf euh, Modou Alaaji euh, moom Abdourahmane de euh, joxe na xalaatam. ba wuteeg gars yi gis-gis bi ñu am ba ñenn ñi ci alliés yi sax commencé woon di génn di kaas di wax ne waaw ñoom dañu tëj bunt yi ñoom dañu bëgg a dem rek ci ak seen seen biir ñoom ñi bokk tey jii nii euh, est-ce que d'accord nga moom euh, gis-gis bi nga xam ne am na ko ci euh, gars yi ni ñuy interpréter wax ji. waa xam nga Abdourahmane Diouf ñu ngi koy nuyu. Hmm. di rafetlu aussi taxawaayam ci li nga xamante ni mooy liggéey bi. aussi tamit di rafetlu ay sorteem yi nga xamante ni bi mi ngi koy def eh, sorti yu ci bari eh, li muy wax di tegu ci xel nga xamante ni vraiment da ngay gis di nit la koo xamante ni parce que man teel naa ko détecté Abdourahmane Diouf yàgg naa ko dégg mu wax naa ni bon am na ñu bari ñoo xam ni peut-être eh, li tax sax nit ñi tey ji teeluñu leen xam dañu nekkoon ci keppaaru ñenn ñi mm-hmm. Euh, mais bu ñu demaloon seen bopp tey jii mënoon nañoo nekk sax li Sonko nekk nii tey parce que nit la koo xamante ni ku am ay valeur la et tamit ku xam li mu bëgg la teyit nekkul ci kii dégg naa ko mu expliquer wane ni euh, bi muy tànn ne day ànd ak ñi nga xamante ni bi ñooy waa coalition Bassirou Diomaye Diomaye président tegul benn condition dafa ñëw pour jàppale ko parce que dafa am loo xamante ni bi gis na ni mook ñi ñoo ko bokkale muy ab xeex boo xam ne moom la ñuy xeex pour jëlee fi système bi sunu borom dogal ñu gañe te tegul benn condition ñu jël ko fal ko minis mm. tegul benn ah, condition ñu falal ko ay nitam donc demandé wut lenn tamit te day continuer di accompagner li nga xamante ni bi moom la ñuy wax euh, mouvement bi waxul ne da ngeen may sédd nangami député wala nangami lii bo ki génn mooy metre Moussa moo génnoon bi mu génnee li mu wax après ñoo bokkoon ci coalition ba ñoo génn weddi ne la mu wax demeewu ni loolu rek la dëggalaat mm-hmm. wane ni euh, nañu waxee ak yëf yi na mu demee du benn mm-hmm. waaw te nag wax dëgg fa yàlla boo ko tegee cim xel di nga xam ne ay partie yoo xamante ni war na noo dajaloo coalition ku nekk di wax lii ak laak lële dem ci bañeeru Pastef bu boobaa moo doon gën bu boobaa tamit dafa am yeneen yoo xamante ne bi mu ngi ci kanam pour sécuriser aussi tamit yëf yeeg yooyu parce que kundo bin rey sa maam foo gisatu luy ñuul daw am na yu bari yoo xamante ne bi war naa mën a tax Pastef mhm. mën koo teg ci table ji mhm. convaincre képp ko xelu xam ni lii mu la wax dëgg la parce que ànd nañ fi fal ñoo xamante ni bi ba ñu génnee dañoo doxalee neneen waaw parce que ku ne gis na aventure Pastef seen coalition boobu ak waa yi mhm. kenn ku ne gis na ko ak tamit ak waa Wallu bañ leen dugalee ñu am lu mat ay vingt cinq députés xam nga bu ñu waxee parti démocratique sénégalais am na vingt cinq députés xam nga loolu bu fekkutoon ni Ousmane Sonko duñ ko ah, woon ah, ñu parti démocratique waaw nañ xool ba élection yaa ngi ñëw mag la de waaye élection ngi ñëw di nga xam ndax parti bu mag la wala bu ndaw <laughs> élection yaa ngi ah. ñëwaat quand même après dinañ xam PDS waaw mais xam nga man waxuma la ne te xam nga tur ak kii PDS dafa amoon moteur moteur mooy Ablaye Wade mooy moteuru PDS. te ñu bëri wóor ne la PDS fi mu toll nii tas na. wasaaroo Amady Diallo nga ne la jaar na ne le ma nga Pastef kii ya nga ne daw na nu mu tuddati eh, ba dàq nañ ko. Doudou eh, Wade dàq nañ ko mm. par PDS tas na quoi. Ah. donc ñoom maire Waré Sarr ñun ñëpp génn nañ ci parti bi. Mm. ku ne yaa ngi koy dégg mu ñu frustré donc ah, parce que ñu ci décision yi waaw décision dogal yi nga dogal yooyu nag yàgg nañ koo jël mm-hmm. am na ñu bari looloo leen indiloon ay problème ci PDS bañ génn ci mm-hmm. mais en tout cas nii mu def nii nii la booy ànd ak nit dangay ànd ak ñoom euh, dem ak ngëm-ngëm sans pour autant que nga calculer lu la ca fekk nga xam lii fekk na la ci lii la waaw mais il faut parfois nit ñi di ànd bañ a waxaale mais dafa am ñu bari ñoo xam dañuy waxaale lu ma ciy am nañ bàyyi. loolu fi war a jeex ma ciy am yooyu dafa war a jeex quoi <laughs> yëf yi lu ma ciy am. xam nga dafa am wax yoo xam ni ci li tardé réew mi ci yu loxol kajoor day yeesaloog maanaam rokk mi rokkeeg jox ma ma jox la xam nga dafa am yoo xam ni baaxut yooyu dafa demoon ba ci élection da nga daan wax nit ki voteel ma mu ne la loo may jox. Ah, parce que ah, loolu la ñu tàmmaloon nag alaaji voilà mais léegi yu mel noonu yu bari mu ngi wàññeeku. Mhm. donc loolu c'est bien. macha allah d'accord jërëjëf am na solo euh, dañuy jeexalee nag ak euh, chroniqueur judiciaire boobu di euh, Daoud Mine jëm nag ci mbirum Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ñi nga xam ne ñoo jiite tête de liste yi ñoo nekk ci tête de yi nga xamante ne ni coalition yi ñu àndal kàddu yu mu yëkkati jëm nag ndax dañu bokkam duñu bokk ñu dem teewlu li may wax c'est sous réserve de li nga xamante ne moom la conseil constitutionnel di décider. Ah, mais tey jii bu fekkee dañ commencé ci Ousmane Sonko. élection présidentielle bi passé le même conseil constitutionnel dafa invalidé woon candidature am parce que tout simplement dañ ko condamné woon à quatre mois assorti de sursis dans l' affaire ci loolu lañ basé woon pour invalider li nga xamante ne mooy candidature am. c' était pas par rapport ak l' affaire Sweet xam ñu ngi doon wax ay di yéeg a ko wàcc mais li taxoon bokkul ci élection mooy les quatre mois assorti du sursis bi nga xamante ne dañ ko condamné woon dans l'affaire Mame Mbaye Niang mm-hmm. ci loolu la conseil constitutionnel basé woon pour wax ni mënul bokk ci élection bi en vertu des dispositions de l'article L30 bu code électoral mais après l'affaire Mame Mbaye dafa bokkoon ci euh, amnistie bi mm-hmm. ce qui fait que aujourd'hui au moment où on parle Ousmane Sonko nekkul ku nga xamante ne Euh, am na lu ko mën a tere mu bokk ci élection bi nga xamante ne moom lañ jublonee mm. Barthélemy Diaz dañ ko kondaane woon dans l'affaire Ndiaga Diouf à deux ans dont six mois ferme mm. six mois yu nga xamante ne tëddoon na ko ba pare mm-hmm. euh, tribunal correctionnel bu Dakar condamné woon nañ ko condamné woon ko cour d'appel bu Dakar confirmé ko et le 22 décembre 2023 cour suprême daal di koy confirmé définitivement mu nekk une décision définitive à partir de ce moment là suñu appliquer les dispositions de l'article L29 euh, bu code électoral dafay nekk ku nga xamante ne warul nekk ci liste électorale yi. Mm. loolu la code électoral code électoral wax mais. est-ce que entre temps rajo nañ ko ci liste électorale yi wala rajo wuñ ko ci liste électorale loolu nag dafa nekk lu nga xamante ne leeruma peut-être bu ñu demee ba ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel dina ko dina ko décider toujours est-il que keroog bi nga xamante ni am na condamnation définitive bi. Euh, il suffisait tout simplement que ministre de la justice de l'époque Aïssata Tall Sall ci demandé woon sa radiation ci liste député yi. dafay nekk lu nga xamante ne dañ koy atte parce que loolu la loolu la constitution bi wax loolu la euh, règlement intérieur bu assemblée nationale wax. donc mandat député bële sax nga xamante ne amoon na ko député euh, assemblée bi nga xamante ne dañ koo dissoudre récemment ne. mandat boobu dès l' instant où condamnation définitive mais amoon le 23 décembre. il suffisait tout simplement que ministre de la justice demandé woon à ce que ñu rajo ko de la liste des députés à partir de ce woon doonul woon nekkati député. donc nag partant de cela on se dit que bu fekkee ne euh, ndegam boobu mënoon na bañ a nekk député aujourd'hui su fekkee ne déposé na également si on se base sur les dispositions de l'article L29 soo encore une fois je mets une réserve parce que conseil constitutionnel moom mooy décidé soo moytu bu demee conseil constitutionnel dinañ ko écarter tout simplement en vertu des dispositions de l'article du code électoral Aïcha mi ngi noonu alaaji euh, dégg nga kàddu daw de mi nii dafa dem nag euh, nee na nag amagu ci certitude mais bu fekkee ne li muy njort noonu la demee moom Barthélémy Diaz euh, du mën a bokk ci les élections mais est-ce que jàppoo ni sàmm suñu kàddu daañu jël risque jiital koo xamante ne ni amuñu certitude que ni moom dina bokkam du bokk. waaw sàmm suñu kàddu san dépend ci li ñu bëgg rek pareen saa mën nañoo bëgg bañ a bëgg a dem mais bëgguñu wax ni dañoo boycotter. dañoo bëgg maanaam dañoo bëgg a taqal mën na ne xam nga mën nañu wax ne élection yi nañu wut pexe pour bu ñu dem ah. waaye bu askan wi xam ni ñun dañuy wut lay ne demuñu léegi li ñuy def mooy nañu fexe diaboliser nguur gi parce que boo seetee même ni ko journal yi di biddee sax ba ñuy jël kaawu Ousmane Sonko di ko méngale kaawu Barthélemy loolu yëpp ñu ngi préparé dugal ci bopp nit ñi ne ñoom xam nañ ni Ousmane Sonko day jàll léegi lu tax Barth jàllut léegi pour jéem a taasal yëf yi comprendre donc. pour man non mën na nekk. parce que attention de du ñëpp ñii a dem coono yi ñuy daj yëpp lañu daj ci yi ñu di wax ah, yëpp mais diaboliser façon bu nekk rek ñëw uniquement pour diaboliser diaboliser rek parce que élection yi ñu génn li ñu daj ñeme waatu ñoo dem élection normale de maanaam dañoo bëgg wut ay lay yoo xamante ne bi ay mbirum tappale rek mais man wax dëgg fa yàlla euh, man moom damaa amoon envie Barthélemy dem ci élection yi sax ah. waaw parce que day gën a remobiliser waat troupe bi parce que bi dafa am ak problème ak waa Ndakaaru parce que mi dane moom moom moom Ndakaaru waaw loolu moom moom moom Sénégal ne ko Ousmane Sonko moo la fal bu dutoon ak moom duñ la jox mairie bi mu ne Ousmane Sonko joxuma dara moo tax ma bëggoon combat boobu am. Hmm. waaw ba Barth xam boppam. mbirum élection yi nag lii ngay gis nii yëpp ñaar rek la système la ak anti système ñii ñooy système bi mooy ñii ñëpp dajaloo nag laa yëpp nag ñoom ñëpp booy bu nga bool leen ci ñoom ñooy système bi l'autre muy Pastef mooy antisystème ak ñi nga xam ni ànd na yow moom ñoo bokk ak moom même ngëm-ngëm mais les autres yëpp système lañ. te nag soloon nañ fi ay mbubbu naan man maay lii ak système maanaam ñoom ñëpp dañoo nax nga taxaw ne système lañ ñoom ñëpp dañoo naxoon système bi ba li ñu amoon dañ ko am ci turu anti système parce que ñi leen doon votel dañoo defe woon ni ànduñoo ak Macky comprendre mais seen doxalinu tey wane na ni ay Macky Sall dëgg lañ àndaloon moom la ñu àndaloon démb moom la ñu àndala tey parce que seen doxalin bii ñu doxal moo la ko yor mënoo xeex lenn même pas six mois après nga bëgg a ñëwaat ànd ak ka nga xam ne moom nga di wëlbatiku ña nga doon ànd ka nga doon àndal nga ne léegi moom laay taxaw pour xeex ko. donc loolu dafay wane ni. Euh, kii la rek. ay ñi fi doon wër naan tibb tànk ak te mm, bokk ne nag yooyu yëpp ñoo mais alaaji yow ñii bu ñu jógee pour saboter Pape Djibril Fall li muy wane yëpp. lan la wane Déthié Fall. ba Bougane Gueye mi nga xam ne léegi saa su Sonko génnee mu génn bàyyi ko ma nga ca may gay ma nga ca nen ya <laughs> bàyyil kooku nit nekkee ci déglu ma rek wax la ak ñoom xalifa ñoom ñëpp nga ne ñii dañoo ñëw uniquement pour saboter élection yi <laughs> <laughs> risque boobu nit dina ko ah, jël waaw ah, risque boobu ba ñu xamee ni risque la lu tax li dut risque ñu bàyyi ko fa dem di def risque lan moo dut risque mënuñoo jël xalifa def ko tête mënuñu woon jël Pape Djibril def ko tête de liste mënuñu woon a jël euh, waa ji nen yi borom nen yi def ko tête de liste. Ah, mais peut-être am nañ confirmation. que les gens borom nenu baxal. waa ji. gan nenu baxal mi ngi dëgg waxuma waxuma waxu. non nenu baxal lu tax ñoom mënuñu ko woon jël. <laughs> mais nenu baxal baxal nag fan la toj nag alaaji yow tamit. nga de. ban élection la mës a dem. ba ah, am nenu baxal kat telem nee nañ ñoom ñooy mooy kii. mooy chef de l'opposition. mooy chef de l'opposition. <laughs> ah ñooñu ñëpp ñu bàyyi leen fa dem cël fa nga xam ne fa la problème am ñu ne ñu indi ko boobu lañ bëgg ay jafe-jafe maanaam loolu lépp dañ ko def pour jéem a takkal rek ñoom bàyyi nañ nen baxal bàyyi dee cefaal bàyyi eh, majji majji bàyyi xalifa bàyyi waa pur ñoo ñëpp ñu ne ko fi ñukk bàyyi Anta Babacar Ngom ñoo ñëpp ñu puus leen daa dee indi Barthélemy pare wuñu alaaji wax nga lu garaaw pare wuñu ah hmm. gars yi nañ la mere de parewuñu dañuy caaxaan rek parewuñu ok kon baax na parewuñu ñoo ko tey <laughs> doy na waar daal en tout cas euh, ci kanam tuuti dina leer ndax gars yi fi mu toll nii euh, dinañu toll ci fu ñuy saytoo yooyu le dossier ñàkk euh, fii ak ay fan yu néew rek daañu ci am confirmation incha allah kon nag ñu bàyyi ko mu tàggatoo malaaje waa ñu joxante dig daje incha allah beneen altine ci kàttanu borom ci kàttanu yàlla damay ragal nag borom ne ni moom dana ne kii moom xam naa moom mooy loolu mais bon mi ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax euh, ci xalaat yi nga xam ne nii indi na ko euh, di jaajëfal képp ko xam ne nag yaa ngi ñu doon suivre jaajëfal juuf Diouf Abdou Tob Abdoulaye Diallo ñu nekkoon ci xarale gi jox leen euh, dig daje beneen altine ci l' émission des émissions.